grand champion salaamaaleykum waaw ah, dama lay filmé wala ngay yàq sama portable bi boo ko yàqee da ngay jëndaat de ba yaa may accusé de fekk naa àndama yanu la génneel si biti nee na Lalu moo gën Lalu naqari àddina waaw loolu moom lalu na ma waaw li ma defoon la ma def waaw li ma defoon la ma génneel si biti loolu lu tax nga dàqoon ma defaatee ma dàqal si mooy lan waxal lan nga lan laa defoon jaxase écrifage rek jaxase écrifage waaw jaxase eh, non loolu moo toog ci télé bi hmm. ne li ko gën ci àddina mooy ba ko nguufaanee génne ko si la ah, ma defoon moo bu ko defaatee nguufaan ko hmm. génnewaat ko si biti moom moo duñ ko génnee. Euh, mu waxoon a ah. Ah. ne ko ah. loolu amul de Gris. non déet à wax amul ne li ngay wax waaw ma ne wax amul yow mosoo ko teg si yoon. yow mosoo ko teg <laughs> ñi ñëpp maa la gën a nekk naan nit nag parce que si ñëpp maa la gën a nekk naan nit taa da nga doon ruube taa da nga doon jaxase <laughs> kii xam nga lan lay fàttali benn affaire bu yàgg bu yàgg mu ne développé sama bureau fii sama bureau nga ñëw yore Paate laa fàttaliku mu mbapat combat yu ma gën a yu gën metti moom laa ko bëre Paate Balde kon seen diggante dër bi la woon dafa mën a waaw dafa mën a bëre tànk te xam nga tànk moom moom ngay bañ a gis waaw moo taxoon suñu bëre doon kii ah. fu mu yàgg-yàgg si moom ngay gis suuf si suuf lay moom tànk xam rek ñun tànk lañ jàngee bëri ay song ak yooyu tey dana kam màgg na waaw loolu ah non loolu lay ñaan ba lekk sa avance waaw bañ lekkante avance mu mos ma mos nga mos mu mos nga mos <laughs> mais keroog dama ko dégg mu ne rek dalaa gis nga jóg nga taxaw rek mu xam ne moom li mu doon xaw a bataille psychologique la rek waxu mbër la rek loolu dara loolu eh. doon daf rek ama nante la waaw booy eh, Pikine la nante la moo doon peese rek coupe du monde bi yaa ngi koy seetaan ñu ngi koy seetaan ñun ñëpp. waaw Thierno Thierno Diop Ngale. waaw ah, Thierno Diop men ah Thierno waaw ah, Thierno. Eh, borom borom gars yi gëj gis ñëpp dañuy ñëw. borom béjjén bi. borom béjjén bi. béjjén baax na. <laughs> mais coupe du monde bi yaa ngi koy suivre comme ni ko Sénégal yi. comme ni ko ndax yow xam-xam ne sportif nga. man moom xam nga man xam nga ne man football sport dama koy dund moom surtout xam nga. histoire bi yëpp laay dund mais surtout bi nga ko yëgee en tant que sportif koo xam ne ñëpp a nga ko doon xaar monde bi yëpp daan ko xaar waxuñu sax Sénégal wala Afrique mais addina bi ñoo doon xaar Sadio Mané ah, nga ñu xëy xëy na blessé na